tuumaal ju ñu teg si kaw ministre de l'intérieur te kat kuy tuuma dafay fekk ne ki ngay tuumaal dafa munut wala daf nit ñi wóoluwuñ ko te bu dee munut ñoom opposition bi si seen biir lañ nekk ndax Abdoul mbay moo taxoon fii Sénégal ne Idriss Seck xamul dara ndax école ba ma génnee institut ba ma génnee États-Unis moom dafa bëggoon duñ ju dugg ñu ne ko amu xam-xam doo fa dugg ñaareel bi mooy fii la met président Ablaye Wade taxaw ne. Idrissa Seck bu bëggee mu bàyyi ko na génne lu mu denc alal juuju donc ñooñu kuy seet ku wóoluwut jàppale ñooñu fi nga xam ne nag Babacar Gaye wax na keroog ne ministre Aly Ngouille Ndiaye dafa war a génn fi dafa war a dégager moom moo war a dégager xam lu tax parce que moo taxaw si diggital bi ne man maay porte parole Ablaye Wade ne man maay porte parole PDS bu demee ba ba ñuy investir élection législative yi fekkee wut si kanam fekkee wut si gannaaw xamul tinul ba ñuy yóbbu ko vingt cinquième place wala vingtième place kooku moo war a génn parti day amul carte Sénégal amul la leçon bu mu wax tey mais nag lu tax ma ragal tuuti Babacar gay mooy dafa wax keroog wax ju yéemaane dafa taxaw nit ñi dégg ko tele mu ne moom dafa contre projet Ila baax loolu c'est dangereux ba pare teg si ne dañ ko war waroon yóbbu saalum